asalaamaaleykum gars yi na def maa ngi leen nuyu di leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube la chaîne de youtubeur vidéo yi ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal awolof vidéo tey bi nag vidéo trophée am na lu ñu leen euh, waxoon ci trophée youtube yi ci vidéo yi mujjee def ci demande yi ñu doon def noonu leen trophée yi dafa am youtube nee na dafa am changement voilà changement am nag ñun gisaguñ ko woon mais trophée yi ñu doon demande comme ñaar yëpp ñëw nañ léegi gis nañ changement bi changement boobu lañ bëgg a bëgg woon tamit Euh, balaa ñëw ci loolu nag euh, di profiter di euh, masawu jigéen ñi nga xam ñëpp ñi ngi am cancer ween ndax weeru octobre bi ñu nekk heure bu ñëwee ci lañ def li nga xamante ni moom mooy weeru canceru ween voilà mu nekk cancer boo xam dafay sonal jigéen ñu bari jigéen ñi nga xam ne dal na dal leen yëpp ñu leen di masawu di leen ñaanal yal na leen yàlla saafara di wax tamit ñi nga xam ne amuñu ko yàlla buñ ko am voilà di leen ñaanal yàlla buñ ko am ba pare ñuy def ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy prévenir prévention prévention mooy fagaru parce que olof Njaay da ne euh, xoddi ko bala ngaa lakkale voilà fagaru moo gën faju maanaam dangay ngay def luy tax nga bañ feebar moo gën a économique te moo gën a baax te moo gën a noppali te gën a neex faju voilà parce que boo xasee feebar rek après faju bi dafay metti parce que dootoo am temps pour liggéey dootoo am temps pour naan naan gu neex wala nga lekk lekk gu neex tellement wër rek moo lay intéressé voilà ba pare koom-koom boo munti am dina si dem rawatina feebaru cancer muy feebar boo xam ni dafa dafa mën a consommer xaalis bu bëri parce que fajam dafa xaw a cher donte euh, gouvernement Sénégal def nañ ci ay subvention terewul faj gi dafa cher ba léegi waaw ah, loolu nag xam naa euh, dina am message yu ci lancé mooy fin wu vidéo bi lañ koy def incha allah euh, vidéo bi nga xamante ni mooy vidéo time na comme ni ngeen ko xamee ñaari trophée yi mooy trophée yi nga xamante ni dañ ko doon demande ñaar yëpp ñëw na voilà booy gone xoolee paquet yi ñoo tolloo voilà muy trophée gën na ndaw parce que na nii dinañ leen ko wan nga xam ne mu yor nañ ko fii voilà bu ngeen euh, fàttali ko am na trophée ñu fi jotoon fii ngeen di gis ni trophée moo fi nekkoon trophée bi laa dindi nii bi ma koy dindi sax dafa daanu tuuti mu toj <laughs> moom laa dindi pour mën leen wan différence su euh, trophée njëkk yi ak trophée léegi yi euh, taay yi ni ko YouTube boo wàññee trophée wu njëkk bi moo nekkoon nii nii la doon toll waala bi nii la doon toll bu ngeen loo tam fii am na lu ma fi waxoon ci vidéo bi passé muy trophée bind yi dafay xoos bu ngeen xoolee nii yéen a gis bind yi gis ngeen xoos voilà boo koy fomp loo xam ne dafa ñagas rek bind yi mën na xoos boo koy fomp lu bëri bind yi mën na xoos voilà bi bi koy wàccee dafa daanu mu glissé ci bant bi commencé woon na xoos sax mais moo ko yokk <laughs> voilà mais waxoon nañ tamit boo yoree trophée mu dem ba bind yi xoosu wala mu magget wala mu toj wala mu yàqu mën nga demandaat beneen trophée mais boobaa da ngay fay trophée bu njëkk bi gratuitement lañ la koy jox livré la ko gratuitement ba sa kër comprendre nga mais boo bëggee beneen trophée parce yàqu da ngay euh, fay su dee da nga bëgg yeneen dupliquer ay copie tam pour jox ko peut-être nga yor équipe boobu da ngay di liggéey da ngay fay loolu tam waxoon nañ ko yaakaar naa léegi nag trophée yu bees yi YouTube wàññi na ko mu ngi nii lii mooy différence bi voilà mais nag ni ni ñu ko doon defaree changé wul ni ñu ko doon defaree lañ koy defaree ba léegi mais boo xoolee dafa am différence bii yi ñoo gënoon mag voilà bi léegi dafa ndaw léegi képp ku demandé ci trophée soo jotee trophée bi nii lay mel nii waaw tuutiwaay bu la jaaxal nga jàpp ne waa YouTube ñoom ñoo ko wàññi pour gën a économiser peut-être <laughs> parce que soo eh, maanaam liy defar ñaari trophée yi day defar ñett bi <laughs> voilà kon ngeen comprendre ko noonu loolu mooy li nga xamante ni moom mooy euh, moo jëm ci euh, vidéo trophée yi mais nag euh, pertu valeur am comme ni ko YouTube waxee woon pertul valeur bi ba léegi valeur bi même chose la voilà xëy na nag trophée or yi la ñuy après mu toll comme trophée yi nga moo nekkoon argent voilà li si des li ñuy wax mooy lu jëm ci feebaru cancer bi ngeen gën ko bàyyi xel bu baax voilà boo gisee sax li ñu takk nii ñu ngi ñu ko jox woon ci émission bi ñu doon def wal fajri voilà si semaine euh, passée euh, ci ñu invité kàngam ñu ngi koy remercier bu baax a baax mu invité wuñ ci émission Petit Déj pour ñu partager fa li nga xamante ni mooy avantage yi nga xam ne YouTube am na ko ak liggéey ci internet am na ko pour euh, temps bi bëriwul mais ñuy profité nañ ci antenne bi sensibiliser du ñàkk dina am personne yoo xam dinañ ko gis affaire bi intéressé leen parce que bëri na ñoo xam dinañ bëgg mais duñ xam fu a te loolu nag dafa dafa dafa bëri ci dëkk voilà te comme ni ñu koy wax toujours am na lu baree bëri loo xam ni internet mën na ko absorber ci li nga xam mooy chômage bu am ci dëkk bi euh, parce que liggéey yi am ci internet ay liggéey la yoo xam ne du jeex waaw peut-être euh, xëy na nit ñi fa formé wu ba am compétence yi pour liggéey ci loolu kay mooy wax ji mais liggéey nekk ci internet moom Sénégal yëpp mën nañ cee liggéey voilà parce que doon naa ko wax keroog ci groupe WhatsApp bi Euh, population Inde euh, romb nañu un milliard quatre cent millions te genn wàllu indien yëpp dañoo yor ay seen YouTube nekk ay youtubeur voilà loolu à peu day dem ay côté sept cent millions de youtubeur te ñun nag yaa xayti at mi buy jeex la ñuy war a mat vingt millions personnes voilà ñun ñun Sénégal at mi buy jeex lañuy war a mat vingt millions personnes te waa Inde ñoom ñoo ngi un milliard quatre cent et quelques millions habitants Chine tam même chose un milliard quatre cent et quelques voilà muy dëkk yoo xam ñu ëpp ci àdduna bi muy Chine ak Inde. voilà te genn wàll indien yi ay youtubeur lañ ñun nag 20 millions kon ñun ñëpp mun nañoo nekk ay youtubeur di gañ xaalis voilà <laughs> ndax te dox dox sax mu nekk toq ci ci ci <laughs> indien wala indo yi nekk <laughs> youtubeur voilà. loolu dafa am solo ñu bàyyi xel nag feebaru cancer feebar la boo xamante ni day sonal ñu bëree bëri bëri ah, jigéen ñi nga xam ni daf leen di dal leen dal seen ween ñu euh, ñoom ñoo tax weer bi ñu def octobre rose voilà octobre rose. pour toujours ñu ñi di ko gën a bàyyi xel di leen mën a dimbali et cetera et cetera mais nag prévention bi man moo tax may wax prévention mu ëpp solo parce que ki feebar ba pare moom faj moo fa sës mais ki feebaragul am na possibilité bañ a feebar possibilité lan la mooy na muy dundee noo xamante ni cancer du ko mun dal dundee noo xam ne cancer du la mën dal nag maanaam yomb na yombul yombul parce que habitude yi fi nekk dafa dafa bari muy boisson yi nga xam ne da nga koy naan te boisson yëpp presque mun naa ni boisson yi ñuy jaay ci boutique mun naa ni comprendre que voilà dara baax yëpp am na ci ay produits yoo xam ni mën na joxe cancer presque boo seetee parce que ay affaire colorant ay affaires yooyu yëpp c'est démontré ci médecine ni yooyu yëpp ku ko yàgg jël mën na la indil ay problème comprendre nga voilà du ma sute nag du ma cité nag benn boisson mais boisson gazeuse yeeg boisson jus yeeg ñoom ñëpp ci benn baaxu ci boo ci ak bouillon yi ñuy togg ci kër yi yooyu yëpp boo ci jël lu yàgg-yàgg mën na la indil cancer cigarette yàgg-yàgg da lay indil cancer sàngara ku koy naan lu da lay indil cancer voilà te paradoxe yi mooy yooyu yëpp suñu gouvernement yi dañ ko autorisé ñu koy jaay ci dëkk yi te yëpp ay produits yoo xam ne produit cancérigène la dañuy joxe cancer voilà am na loo xam nag moom day dina facteur la boo xam ne mën na favoriser indil nit ki cancer nànk-nànk te nit ñi duñ ko bàyyi xel muy lan muy li nga xamante ni moom mooy euh, légumes yi yi nga xamante ni dañ koy jënd di ko togg waaw ci ban anam naa dinaa la jaaxal bu ma waxee légumes yi parce que légumes yi ñu bëri lekkal furi lekkal légumes bien sûr mais légumes yu naturel légume bio ak fruits yoo xam ne fruits bio la moo tax ñuy wax mais bu dee légumes yoo xamante ni maanaam dañ leen engrais après def leen ay pesticides maanaam ñoom ak euh, boisson yeeg cigarette yi ñooy xaw a voilà. li tax moo ko mooy da dem zone des ñaay benn baykat am toolam di bay par exemple tey euh, concombre comprendre wala muy bay li nga xamante ni moom mooy poivron wala kaani wala wala. léegi am na ay gunóor wala ay sax yoo xam dañ ñëw di yàq gàncax gi te moom bëggul lool du mën a jaay. léegi day dem jëndi produit yoo xam ne produit phytosanitaire lañ koy waxee yoo xam da koy jël def ko ci ndox boo ko def ndox diluer ko day mel li sa sa boo ko diluer day ko meew ko pompe ko ci gàncax gi pour gunóor yooyu duñ mën a lekk gàncax gi maanaam bu ñu ñëwee gàncax gi rek dañuy dee comprendre yi ci nekk tam mu mën leen a rey nag boo defee produit yooyu dañ lay wax toujours maanaam dafa am yoo xam ne à maanaam produit yoo xam ni boo ko xasee pompe ci gàncax mën na faa def 20 jours yoo xam ni Euh, maanaam jeexital bi dafay nekk am yoo xam ne quinze jours am yoo xam ne une semaine ça dépend ci doole yooyu yëpp nag dañ koy bind ci ci ci produit bi ci étiquette yi mais nag ñu si bëri duñ ko respecté da ngay su ko xam dana pompe si gàncaxam produit chimique boo xamante ni dafa war a toog fukki fan ak juróom yoo xam ni maanaam tool bi kenn du lekk lu fi jóge loolu lañ bind ci produit bi ba ba ba naaj ba ngelaw li seeyal affaire yi comprendre mais mu def ko doom une semaine mu wat def ci ay saakoom ñëw indi marché jaay. léegi nit ñi koy jënd luñ ci wax xamuñu si dara dañuy jënd rek dem léegi nag bu rawatina dañ nga xam ne buñ jëndee duñu raxas raxas set <laughs> voilà léegi nag yooyu tamit produit chimique yooyu soo koy jël ndànk par ndànk ndànk par ndànk ndànk par ndànk mën na la indil cancer bu yàggee loolu dafa mat a bàyyi xel voilà euh, mu ngi mel ni produit yi nga xam koy pompe pour rey ay yoowal tout euh, yi ñuy taal pour ay yoo yëpp xam nga lu rey mbuum dee ci maanaam booy pompe chaque jour chaque jour chaque jour pompe ngay pompe ci néeg bi yooyu di dee mais loolu produit mais force nga koy nooyee nànk nànk nànk nànk bu yàggee mën na leen di jafe-jafe sax poumon yi voilà yooyu dafa nekk ay détails yoo xam nit ñi dañ ci war a bàyyi xel moo tax booy pompe yoo xam ne da ngay pompe nga yor euh, pompe yi di pompe ay yow da sol ay masque comprendre pour yow pompe bi mu rey yooyu te du la dugg sinon rek après daf lay indil ay ay jafe-jafe voilà loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax loolu mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko ci yokk leneen itam loo xam ne xëy na mën na di cancer te xëy na bu ñu ko waxee sax mën na jaaxal ñu bari muy léeg-léeg am na ñoo xam ne cancer yi leen di dal du produit chimique bu leen di dugg du cigarette du sangara du et mais ay cat moo leen nekk seen yaram yi créé leen cancer parce que cancer day ñëwee nu ne parce que cat ay wax yu négatif la yoo xam ne dafay dugg ci yaramu doomu aadama mën na perturber parce que mais loolu nag beneen domaine bu gën a xóot la science loolu <laughs> du wàllum du wàllum du wàllum euh, médecine nii quoi walla beneen domaine la mais mais lu lu lu lu lu lu lu lu lu science beneen façon science tamit loo xam ne science bu dëggal na ko dal maanaam nit ñi wax yu négatif yi ñuy wax mën na dugg nit wala cat mën na dugg si yaramu doomu aadama perturbé parce que énergie la perturbé cellules yi nu mu doon fonctionner parce que cancer c'est très simple cellules yi nekk ci biir yaram euh, professeur Ousmane Dia doon na ko expliquer cellules yi nekk ci biir yaram la ñooy dem ba yàgg ni ñu doon euh, juddoo màgg dee beneen remplace juddu mu dem am anomalie. léegi nag ñuy commencé di dajaloo di multiplier multiplication boo xam ne tegootul ci yoon su yàgg mu nekk li nga xam day mel ni góom comprendre nga muy màgg nag di affecté yeneen di wàll yeneen yi ñu dendal comme li ñu naan benn pomme ci bu nëb ci saaku dafay dem ba day yàqu saaku bi cancer noonu lay def voilà loolu nag mën na nekk ci lu ñuy lekk mën na nekk ci lu ñuy naan mën na nekk ci ngelaw lu ñuy nooyi mën na nekk tamit ci wax ju ñuy wax jëmale ko ci yow mën na nekk ci wax joo xam ne yow yaa koy wax di ko génnee te doo ko bàyyi xel loolu yëpp dafa nekk loo xamante ni eh, dafa mat a bàyyi xel voilà euh, nit ñi léegi jamono bi egg na foo xamante ni loolu nag conseil la jamono bu egg na foo xamante ni maanaam euh, pour nga mën a contrôler li ngay lekk lu difficile la parce que boo fexee nag ba boisson yi <laughs> jaay ci prix bi doo leen jënd yaay defaral sa bopp jus comprendre nga ceebu jën bi ngay lekk légumes yi fi mu jóge xamoo ko kan moo ko bay xamoo ko ndax biñ ko pompé xaar na yooyu mënoo ko xam dafa bëri paramètres yoo xam mënoo koo contrôler comprendre nga même boo nee non damay lekk cere cere bi euh, euh, est-ce que pompe ñu woon euh, dugub yi góobu dugub bi ñu nekkee ci tool bi maanaam paramètres yu bëri yow mënul contrôler la moo tax nag kenn képp koo ci xamante ni musulman la nga bàyyi xel sooy lekkati bismillahi rahmaani rahim bu ko fàtte c'est très important et c'est facile à dire lu yomb wax la lu am solo la li nga xamante ni ay gàllankoor yu mën a nekk ci lekk gi ngay lekk wala naan gi ngay naan koo xam ne itam chrétien nga tamit am nga prière yoo xam ne chrétien dinañ ko def wala catholique yi bala ngay lekk nga koy def comprendre nga dina loolu jarul xeeb de ah jarul xeeb dafa des fois nag euh, euh, ku xam-xam na ku xamul xamul mais jarul xeeb boo ko kenn xeeb parce que léegi-léegi dina am loo xamante ne yooyu rek moo la si mën a génnee mooy bala ngay lekk nga lekk ci kàttanu yàlla ak ci tur yàlla oh, comme yàlla moom mi ngi gis ñam gi ngay lekk loo xam ne yow mënoo ko gis xam na ci loo xamul mu luggal la li ciy lor saa mu wax la dara voilà bu ko defee jàmm ñooy voilà affaire yi comme lekk yi mënuñu koo contrôler kon lu ñu ciy dugal suñu gémmiñ rek moo xam lekk la wala naan ni ñuy jiital bismillahi rahmaani rahim te sax yaakaar naa loolu mooy li nga xam ne moom la ñu euh, yàlla euh, sant voilà. bon vidéo fii lañ koy yemale vidéo trophée la woon rek ñu profité ci ci cancer bi comme weeru cancer lañ nekk di ñaan yàlla nag képp ko am cancer dalu la yal si yàlla musal képp koo xamante ni tamit euh, maanaam amoo benn bokk bu cancer yàlla boo ko am. parce que loolu mooy wér ak wérle parce que boo wéree tamit te sa doom feebar wala sa soxna feebar wala sa papa feebar day mel da ngaa feebar parce que yaay nekk di yóbbu hôpital di sonn boo amee malade moom da ngay malade fii ak yaa ngi moom yéen a yem moo tax moo tax kuy ñaan bul ñaan wér kese da ngay ñaan wér ba pare ñaan wérle boo wérle mooy tax après da ngay mën a nekk ci yeneen activité yoo xam ni du nekk mbirum euh, faju kon ñu leen di jox rendez-vous euh, vidéo bii di ñëw incha allah rabbi jërë ngeen jëf